gannaaw njum ak gama ji Sare jëwriñ ji ñu dénk wàllu jaww ji mi ngi woon Saint-Louis Ndar Géej ci li soxal nag programme bii di njëmbat garab te banqaas ba mu jiite taxawal ko fa mu tàmbali liggéey bi nag doon jumaay murit bu Ndar te nga xam ne jëmbat nañu fa ay garab yu fa am solo ñu ngi fii ginnaaw bu ñu bàyyeekoo démb euh, fële ci euh, njum ak euh, gama Gamaji Sare bi ñu Nous fofu fi euh, Saint-Louis euh wara euh, dans la ville de Saint-Louis Nous euh, avons... esplanade bi nga xamné mom moy grande mosquée de Saint-Louis ñu fekk fi imam bi ñu ngi koy jaajeufal bu baax diko remercier mom ak ñimu ci parce que nous sommes aussi soxla nañ fa ñu indi ay arbre ombragé Euh, daal di koy jëmbat. mu neex loolu nag kilifa gi nga xam ne moo fi teewal askanu murit di nuyu ministre bii fi ñëw léegi di Abdou Karim Sall ñëw fi ci turu njiitu réew mi ngir euh, liggéey bu ñu leen sant. ñëw fii nag ci barab bii di yi murit fii ci Ndar ngir di fi jëmbat si ay garab mu nekk loo xam ne lu ñu yittewoo la. di lu ñu lu ñu soxla lool loolu nag taxawaay boobu nag ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ci turu xalif général di murid sëñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa barab bi ndax barab bi ci barabu sëriñ Tuubaa la bokk kon nag euh, lépp lu ñu fi def rek ci ci kilifteefam la ci la dugg kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen yóbbante cant ak ngërëm ak nuyoo ci njiitu réew mi moom jëwriñ ji nag Abdou Karim Sall rafetlu na liggéey bi nga xam ne na ne ndaw yi gunge nañu ko ci bu baax a baax loolee te ndawu APR ci diruk campagne bi yépp nag firnde na ko fii ci bët gànnaaru réew mi. fi bàyyeekoo Abdou Karim Sall nag dem na pal ak i trawo ngir rek fësal solos liggéey bi ci kanamu kilifa diine ya mu fa fekk mu sax ni. liggéey la boo xam ne njiitu réew mi ci boppam Macky Sall moo ko sumb te am ci yaakaar bu baax a baax moom xalif bu Paal sëriñ Ousmane Ngom ci kàddoom sax rafetlu na taxawaay bi te xamle sax ni lu ñu dooroon la ci gox bi ndax solos si nga xam ne garab am na ko ci dundu doomu aadama gannaaw li nag ñaanal na délégation jëwriñ ji ñaanit mbas mi di coronavirus jeex ci réew mi benn taxawaay bi nag la jëwriñ ji amalaat foofe ca Louga ci kër Thierno Bachir Tall mu ñaanalit ko ba liggéey bi mën a antu principal axe bi nga xam ne nag moo jaar Louga ak buntu kërug attekaayu région bi ak li ko wër jëmbat nañu fa ay garab moom jëwriñ ji ñaax sax ngir ñu jox leen toppatoo bi war jaare ko rek ci citoyen bu nekk rek sàmm ci ñaari garab ndax banqaasu ose fore forêt ñoomi nen mënuñu toppatoo garab yépp ngir jeexal nag jëwriñ ji Abdou Karim Sall nag firndelaat na liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne amal na ko fii ci bët gànnaaru réew mi. Euh, jàpp naa ni euh, mun nañu wax ni euh, bilan bi nga xam ne mun nañ ko tiire ci tournée bi nga xam ne ñu ngi koy def depuis dëmb bilan bu satisfaisant la. ñu ngi jot ay feedback ci. li nga xam ne moom euh, euh, les inspecteurs yi nga xamné ñom ñoom am ci région yi euh, ak la direction des eaux et forêts par rapport ak nit ñi di ñëw di ut si li nga xam ne moom garab bi. gannaaw ba mu fàttalee ni Sénégal jaare ko ci ñëmbat garab rek le sukkandiku ngir ab sukkaliku fep ci réew mi.